asalaamaaleykum mbokk Mbour. asalaamaaleykum mbokk waa Mbour. man xam naa seen xol ngeen jël def ci Ousmane Sonko. waaye nag Ousmane Sonko dafa jël xolam def si waa Mbour moo tax président waa Mbour nee nañ booy dugg Mbour bu la neexee bondeel loolu laaj ñu jox la bu loolu weesoo ku ko xam-xam ni yàgg naa am ay alliés au plan national waaye président dama bëgg tamit remercier rendre hommage ay responsable politique yu bokkoon ci beneen boor fii ci biir Mbour ba jël kaddu jël décision jotee pour jox la majorité écrasante dañoo bàyyi fa ñu nekkoon laaju ñu dara xaari ñu dara mais dañuy ils vont mettre à l'aise le président Diomaye mu gouverner pendant les cinq prochaines années te ñoom ñëpp ngi fi toog ñoom ñëpp ngi fi toog may rendre hommage waa diaspora bi bari nañu toog fii dañoo dagg billet ñëw battre campagne te jëndaat nañ billet pour le 17 ñu dem voter Europe ak Amérique ñu ngi fii toog. waa Mbour da ngeen ni ku mu neex ku mu neex nga créer sa parti politique wala sa mouvement télécentre ñu ne aussi teg na ne unité juróom wala unité ñaar fukk waa Mbuur mënu seen unité bi fukki dërëm ma ni le 17 novembre c'est un jour historique président dégg na ko président Ousmane Sonko dégg na ko te ñooñu ngeen wax xam na li muy ñoom dégg naa ko démb sa Thiès mu ni gars dañoo jaayoon prison Rebeuss ak prison Cap Manuel mu ñëwaat nanguwaat ko président dañoo bëgg nga defaraat prison Rebeuss ak prison Cap Manuel parce que gars yooyu noonu noonu am nañ fa place am nañ fa naa ko wax le 17 novembre jour historique la jour bu symbolique la pour Sénégal teg mën lu leer nañ ba tax na le 17 novembre way bi benn la le 17 novembre kàddu gu benn la dañuy mottali tàbbali toggali ñun waa Mbour joxante loxo may rendre hommage docteur Mamadou Lamine Diaydié liggéey bu am solo la liggéey di rendre hommage alliés yëpp fii ci biir Mbour ak diaspora bi le 17 novembre weeru koor xam nga moom lañ def élection présidentielle dañoo waxoon dañuy xëdd voté ndogu jubilé waaye le 17 novembre Mbour dëkku lébu la tefes damaa bëgg ngeen organiser ay lakk jën parce que foofu la toutes les seize communes se sont pour une victoire éclatante et une majorité écrasante bu defee le président Diomaye dawal le président Ousmane Sonko doxal asalaamaaleykum wa rahmatullah taala waa Mourou dafa am koo xamante ne dinaa ko mais balaa boobu dinaa leen ko présenté.